xayma at mi lu toll ci quarante mille personnes danañu disparaître maanaam lu toll si ñeen fukki junni ci ay nit at nee na quarante mille personnes yooyee France gi yëpp la waaye nag bu dee ci capitale France di Paris at mu jot lu toll ci trois mille personnes danañu disparaître bu ñu ko xaymaa tamit at mu jot daal ñu baree bari ñu gis seen i néew te nañu xam seen i mbokk waaye nag ñi nga xam ne ñoo ëpp ci ñiy réer ca diwaanu Paris la France bi ñu ko xayma maanaam mineur yi la ñi nga xam ne ñooy tuutànk yi yéene kaay gi ba tey di réew mi ko di ñu xëy fekk fa Serigne Mbaye Thiam muy wax ci mbiri jaari saw nee na du joxe li nga xam ne mooy détails yi jëm ci enquête bi waaye li am ba des daal mooy jàpp na ne jaari saw danañu ko gisaat ci jàmm ak salaam yéenekaay gi du L'Observateur daan nay xëy wax ci étudiants yi nga xam ne ñoo nekk ci classe préparatoire ci diwaanu Tugal kaay gi nee na lu métte métte la ñuy dund ndax compétition bu taratar moo fa am ba pare pression bi nga xam ne moom la ñuy dund fu ko waaye natt daan koy passé soixante heures maanaam lu toll si juróom benn fukk ay waxtu yoo xam ne étudiants yooyee danañu ko jàng journal bi daal di xëy wax ne bëri na ay étudiants yoo xam ne bu ñu nekkee ci classe préparatoire ci bitim réew njàng mi ni muy tare mooy tax dañuy jekk-jekk abandonné bàyyi njàng mi yéen a kaay gii de la témoin xëy di ñu xibaar naan ñu ministre bi ñu dénk wàllu mbay mi di Moussa de moo fi yëkkati woon ay kàddu wax ne Sénégal am na lu toll ci benn million yu fegg juróom-ñetti téeméeri junni ci ay tonu gerte waaye nag loole bëri na ay producteurs yoo xam ne wedd nañu ko ba tëdd sa naaj wa nee nañu loolee nga xam ne ministre bi wax na ko maanaam méngoowul ak dëgg yéen gii di réew mi quotidien ñi nga xam na ñooy waa FMI ñoom nag daan nañuy confirmer kàddu yi nga xam ne njiitu réew mi di président Macky Sall yëkkati woon na ko ndax njiitu réew mi dafa waxoon ne bi Sénégal mën naa amaat lu toll ci cent ci taux de croissance loole nag ñi nga xam ne ñooy waa FMI daan nañu koy dëggal ndax nag nee nañu ak budget boo xam ne toll na ci 4 589 000 milliards loole nag dana nekk année boo xam ne année relance économique lay doon na ci lu àdduna bi guerre des vaccins yéenekaay gi ñu xëy fekk fa docteur Annette Seck mi nga xam ne mooy directrice générale pharmacie nationale d'approvisionnement nee na bu ñu waxante dëgg Sénégal amul chambre froide boo xam ne mën na faa conserver ab vaccin boo xam ne dina toll ci quatre-vingts degrés yéenekaay gi ba tey ñu xëy fekk fa professeur Daouda Ndiaye moom nag nee na ab vaccin mën naa baax ci am réew ñu yóbbu ko ci beneen réew du am efficacité loole lu mën a nekk la yéenekaay gi di Vox Populi ak L'As mu ñu xamal nañu lu jëm ci wàllum ñàkku gi Sénégal dina ci weeru mars mars yéen a kaay gii di réew mi quotidien ak l'observateur ñu ñuy xamal naan ñu Aïssatou Seydi mi nga xam ne ay jamono moo fi nekkoon jabaru Diop Iseg tegoon nañu ko loxo def ko ab garde à vue daat nañu koy libéré ni ki démb def ko contrôle judiciaire journal bi di libération nee li nga xam ne moom la ñu koy toppee faux usage de faux escroquerie abus de confiance maanaam ci ay tappale ak njublang yoo xam ne daal dina koy def plainte bi nga xam ne Diop Iseg ko la nga xam ne moo ca nekk Diop dafa jàpp ne bi mu nekkee ci kaso bi soxnaam sa Idriss dem ba jënd ci kër loole la Diop munta nangu journal bi du l'Observateur nee na en tout cas diggante Aïssatou Seydi ak Diop Isaac ñoom 2004 la ñu takkante waaye nag seen diggante neexoon na loola fi nga xam ne nag fi la mujj musiba ma ba kumba la yéen a kaay gi di réew mi quotidien nee na gendarmerie bu Mbuur teg na loxo lu toll si juróom benn téeméer ci ay kilo yu drogue drogue dure yéen a gi di libération nee na drogue boobee ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru décembre si la ñu ko tegoon loxo waaye nag ba léegi nii jàpp guñu kenn moo tax gendarmerie bu Mbuur ak section de recherche Ndakaaru jamono ji ubbi nañu si ab enquête ñoo ngi ci def ab liggéey yéen kaay gi du l'observateur nee na lu jëm ci mbiri Iba Thiam mi nga xam ne moo faatu woon ci ay ndaje yoo xam ne ay doomu VIP ñoo ko doon amal nee ma ñoom daam amar démb àtte nañu leen sa tribunalum Ndakaaru waaye lu ne wax nañu ko fa kàddu yu doy waar doy waar mujjee na faa jiib amee nañu ab liberté provisoire njabootug Iba Thiam ñoom lu toll ci benn milliard la ñuy laaj yéen a kaay gi xëy ci Serigne Abdou Aziz Sy mu Serigne Moustapha Sy mi nga xam ne fan yi ñu génn moo faatu ñu bari dañoo jàppoon ne mort naturelle la nee nañu nag doomam bii nga xam ne am na lu toll si ñaar fukki maanaam moo ko rey yéen a kaay gii di mi ñu xëy fekk fa Pape Amadou Ndaw mi nga xam ne mooy directeur de l'agence pour la promotion et le développement de l'artisanat nee na njiitu réew mi di président Macky Sall dafa defoon ay recommandation wax na lépp loo xam ne jëm na ci commande publique 15 pour cent yi nañu ko jagleel artisanat yu Sénégal waaye nag loolee nga xam ne Macky Sall waxoon na ko ba léegi ne bëri na ñoo xam ne jëfewuñu ko daal nay wax place bi nga xam ne artisanat bu Sénégal am na ko ci PIB bi wax na tamit entreprise artisanale